ñu dalal sunu gan euh, soxna mam mbake mbacke alaykum Malikum Salam, babakar Ya jité euh, raziat euh, di ño xamni dañu yëngu ci walu lu ci melni gerté nga xamni dañ koy soppi bam mu doonu dowli nak ñom sen di yëngu tam ci walu politique ci touba ci nañ ci delsi di fat ni sa way juro gor moy serigne murtada ibnu serigne touba yi ñu bëgg waxtaan ak yow bari na lool way dañ koy ñëkke mbay mi kon ak euh, njaareem goog nga xam ni fa ngeen ni yëngu laata ñu delsi ci li ngeen ñàkk ànd ci li Sénégal di jéggaani diwlin euh, gerte ren gi campagne bi euh, fu mu toll ndax dox naam doxul. Eh, jërëjëf Babacar maa ngi nuyu auditeurs yëpp ak auditrices yëpp eh, di wax ni alhamdulilah campagne ren bi suñu borom eh, dimbale nañu gerte am na am nañ plus de million quatre cent mille tonnes euh, mel na ne ren sax moo ëpp daaw li ñu amoon waaye alhamdulilah euh, président de la république joxe na ndigal pour que euh, société bi nga xam ne moom la ñuy wax société nationale muy Sonacos ak yeneen société yi ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu exportation gerte ñëpp ñu ngi jënd gerte gi ba macha allah tolof tolof bareegul ci wàllu commercialisation wu gerte gi. Hmm, nee nga dox nga politique taxul nga wax koom ndax sa sa péete. Euh, politique taxul ma wax ko waaye dañu gis li nga xam ne mooy réalité yi parce que euh, ñi ngi jënd gerte gi tey ñi ngi koy fay teew jàpp naa ni fii ma toog di wax ak yow bor yi amagul solo noonu euh, ci wàllu euh, euh, opérateur yi. ministère de l'agriculture nañu gisaguñu bon bon impayé amagu fi. waaw ren moom jàpp naa ne bon impayé amagu fi. parce hmm. que ci ndigalu président de la république dafa teel a joxe ndigal nekk que nañu jënd gerte gi et nañ ko fay teew. mais nag am na ay opérateur privé stockeur yu ñu dégg jamono yële ñuy ñaxtu ci rajo bi di wax ne Sonacos daf leen a yoreel bor boo xamante ne gu ko woon ñu ngi doon wax sax ay 13 milliards après ñu dugal ci des 2 yoo xam ne fayaguñ leen ko. loolu Sonacos mujj na ko fay avant ñuy démarrer campagne bi 2018 2019 bi Sonacos fay nag campagne 2017 2018. moom jeex na. li Ndiogou di wax ni campagne yu 2018 2019 la. voilà non li Ndiogou di wax campagne yu 2017 2018 la. mais actuellement ñu ngi ci campagne yu 2018 2019. léegi gerte gi ci boppam chiffre ba nga xam ne gouvernement bi nas na ko am nañ koom. am nañ ko. am nañ ko boo duggee ci àll bi dugg fu mel ne biir Touba euh, nga xam ne chiffre bi gouvernement bi di wax am nañ ko. ci wàllu nag euh, seen taxawaay yéen waa Rasiat di kuréel gi nga jiite da ngeen ni dafa war a jeex ci Sénégal ñuy jéggaani dëwlin. waaw Babacar loolu li tax ñu wax ko mooy réew mënul di euh, bay gerte lu toll ci un million quatre cent mille tonnes ba pare ñuy jéggaani dëwlin te que ku nekk xam na ne huile d'arachide moom moo gën ci huile yi. à part huile d'olive donc mënuñu euh, comprendre naka la réew mu mel ne Sénégal euh, di jéggaani dëwlinu huile de palm ak ay huile de tournesol te ku nekk xam na ne ñaari huile yooyu may wax benn huile dëppwu ci ak suñu togg Sénégal parce que euh, dañu wax ne que huile yooyu kenn waru ko tàngal te fii suñu tradition mooy booy togg euh, ci lu mel ni ceebu jën muy plat national da ngay sansal di huile bi plus de cent degré te huile bi boo ko sansalee ba mu am plus de cent degré dafay joxe loolu germe yooyu ñuy wax germe cancérigène loolu la huile de palme bi di joxe ak huile de tournesol donc vraiment huile bi nga xam ne moom la ñu am muy huile d'arachide loolu moo dëppoo ak togg africain. huile de palme mooy diwtiir la. déedéet huile de palme. Ah, moom mooy bokkul mooy diw riij mooy diw bi jóge ci xooxu tiir bi. donc diw boobu bu njëkk saabu lañ ci daan defar temps yi nga xam dañu ko daan jëlee Casamance di ko indi industrie yi ñoo ko daan jënd savonnerie yi di ci defar saabu parce que huile bi day way boo gisee léeg nga romb ci benn bitigu commerçant fekk fa benn biteelu huile 20 litres nga gis taat bi way parce que loolu huile de palme la léegi nag comme asiatique yi dañ ci dugg réew mu mel ne Malaisie ak yeneen dëkk bay ko bay ci lu bari daal di koy commencé di ko raffiné di ko a fexe ba africain yi di ko consommer ñoom ñu ñëwaat Afrique nag di jënd arachide bi matière première bi di ko yóbbu fu mel ni Chine di ko def huile di ko tasaare ci biir Asie léegi nag loolu nag loolu moo tax nag ñun ñu jug parce que euh, matière première kenn waru ko exporter ci réew parce que boo ko exporter doomu réew ma duñu liggéey ñun li ñu d'accord mooy nañu jël gerte gi. loolu moo leen arrangé waaye baykat yi ñoom leen soxal mooy jaay ba lu ci mel ni chinois yi bu ñu ñëwee di jëndee njëg lu am solo ah, te am Pastef ñoom xooluñ ci yéen li leen arrangé ñoom lu ñu def seen poste lu ñuy wut itam. ñun li arrangé réew mi la ñuy wax parce que lii ñuy xeex ci baykat yi sax la gënee parce que bis bu euh, filière bi huilé bordut day jeex ci mbay mi ndax su fekkee baykat bi su bayee ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nalkati dawlin yi ñu dem jënd ko ci baykat yi ñëw nal gerte gi jël huile bi jox industrie sénégalais yi.

su boobaa industrie sénégalais yi dañuy mën a jënd huile brute bi ci artisanat yi nga xam ne ñooy nal dawlin ji mhm. su ko suñ ko jëndee ci artisanat yi nag en ce moment artisanat yi dañuy mën a jënd gerte gi teew ci baykat bi donc filière euh, boo xamante ni la bor def ciy jeex te que ñun bañu ñu ko exporté mais dañu leen nañu exporté huile brute nañu exporté toto d'arachide loolu mooy ràkkal mais matière première boo ko exporté waaye doomi réew mi duñ mën a liggéey te ñun ku nekk xam na ne filière gerte gi lu ëpp plus de 3 millions sénégalais ñoo ciy dund mu jóge ci baykat bi jóge ci euh, opérateur bi muy commerçant yi ñëw wàcc si euh, ñi nga xamante ni la ñoom ñooy euh, industriels yi artisan yi commerçant yi donc boo xoolee filière boobu moo ëpp lu muy employé ci biir réew mi donc filière la bu nga xam ne kenn waru ko négliger mais waruñu bàyyi benn groupe de personnes rek ñooy dem di importe huile bi plus de 200 milliards par an ñu koy génnee Sénégal di ko jënde huile bu nga xamee ni gënul ci wérgu yaramu sénégalais yi di ko indi ci réew mi di ko jaay. mais justement yéen en tant que ñu yëngu ci wàllum euh, am indi unité industrielle ndaw yi yëngu ci wàllu nal diwlin beeg yooyu est-ce que am ngeen certitude que qualité bi dina am ci wàllum diwlin boobu nga xam ne moom la askan wi di jëfandikoo. absolument parce que ñun bu ñu ko nalee ba pare huile brute bi industrie yi ñoo koy jënd actuellement dañu signé benn convention Sonacos Rasiat lépp lu nga xamante ne la Rasiat nal na ko Sonacos moo koy jënd su ko Sonacos jëlee daf koy rafine doog ko mettre en bouteille ñu doog ko dugal ci marché bi loolu moo tax sax boo xoolee ci ginnaaw ministre du commerce jëloon na ay dogal nekk dañuy arrêté li nga xam ne mooy 250 litres à 5 litres kenn dootu ko jaayati ci réew mi ci lu dul huile d'arachide pour que ñu mën a permettre nit ñi jënd ci huile d'arachide parce que nit ñi boo leen waxee dañ naan xam nañ ne huile gerte bi moom moo gën mais dafa cher segal gi nag nga xam ni gouvernement bi jéem na ko fee aaye yéen luy seen gis-gis ci segal gi nit ñi nal nalal seen bopp gerte gi eh, defaral seen bopp diwlin ci seen i kër. waa xam nga segal mi gouvernement bi aayewu ko dafa wax ne bu ñu segalee nañ jox industrie yi ñu raffiné huile brute kenn waru ko consommer. loolu ñun ñi sax ci suñu xeex la bokk te loolu sénégalais yi ñoo ñu ci mën a jàppale parce que tey jii bu ñu demee ba euh, euh, képp ko nga xam ne artisanat nga da nga yore machine ci sa biir kër wala nga yore machine ci sa biir euh, industrie petite industrie parce que petite et moyenne entreprise loolu mooy développé dëkk boo segalee leer na leen ne industriel yu mag yi dina ñëw jënd huile bi raffiné ko jaay ko ci marché bi kon yaakaar naa ne kenn du amati intérêt di jaay huile brute

mais président Macky Sall bi mu ñëwee. ci gis-gisam soxna si nag sunu soriñ nga waaye tëgg maa ngi bëgg a tax përëm. maa ngi eh, mel ni meeting eh, noonu rek dañuy wax dëgg yi fi jaar bari na maa ngi fàttaliku temps président Abdoulaye Wade dafa xëy ne nañ bàyyi nit ñi ñu lekk diwu segal parce que suñu maam yi moom lañ daan lekk mais moom bi mu ñëwee laaj ñu dañ ko ne ñun mënuñu bàyyi segal parce que moom la ñu am bawal Touba précisément li nga xam ne moo fay liggéey mooy gerte kon mënuñ ko bàyyi mu ne léegi lan mooy solution bi ñu ne ko solution bi mooy utal ñu ñoo xam ne bu ñu segalee ñu jënd ko Nous ñu ko jëndee parce que ñun mënaguñu am capacité am une unité de raffinage loolu nag ki lañ signé benn convention le 13 mars muy entre état huilerie ak commerçant ñun ñett ñi ñoo signé bu huilerie yi euh, mooy artisan yi bu nu nalee dëwlin ji